maa ngi delloo nuyu bi gars waaw. sa adversaire. loo ko indil tey. waaw bëre rek. làmb la waaw. nee na nee na yow doo bëre doo xeex. waaw loolu dinañ ci xam dara. waaw incha allahu rabbi. même loo ko wax. moom. làmb la ñëw ma daan ko rek dama nekk si yoon. te incha allahu rabbi dama koy daan. soo génnee ci combat bi sa xel ci ku mu dem. xaa bañ génn ci ba rek incha allah loolu après beneen affaire la. non moom xam na kuy xeeru ngor. incha allah dama koy daan si kattanu yàlla. say supporters loolu na ameel. la ma leen doon tàmmal rek. man bëri daan laa leen tàmmal damay ñëwaat bëri daan incha allah. waaw jërëjëf. champion maa ngi nuyu. maa bu baax. sa adversaire dafa am lu ma yóbbante ci ma pour ma wax la ko. nee na boo arbitre soufflé doo bëree doo xeex. ah loolu wax bu yàqu la. dinaa ngeen bu ñëw ba nee na yow doo bëree xeex loo koy tontu moom. lépp laay def. lépp xeex bëre xeex lépp lañu def. lépp bëre xeex lépp lañu def waaw. moom bu bëree. bu bëree. moo daan ko bu xeexee moo dóor ko. say supporters loo leen tàmm. bëre daan ñibbi. waaw waxal la waxal ak sa. say supporters am na loo leen tàmmal. damaa bëgg nga wax ak say supporters ñu dégg loo leen tàmmal. waaw li ma la tàmmal mooy bëre daan ñibbi rek incha allahu si kàddu suñu jaam Mohamed. ñoom fan xaar. parcelle. jërëjëf champion maa ngi lay nuyu. waaw delloo ziar. gis si làmb lu waral loolu. waaw dama xawoon def benn année balance sama waajur bu góor moo génnoon àdduna quoi. amin amin waay amin waay amin waay amin sa xel ci ku mu nekk. waaw sama xel ci ku mu nekk bëri na man ñu bëgg a man bëri na bi yëgëri Fallaye Bale laa mujjee bëreel. doobu tay si nga maa ko mu daanu. comprendre nga ay booy abu njaase yi nekk fii nii di wéy wéylu ñoom la waxal de ay booy abu njaase yi nii nañ ñëw ñu leeral ko ay njaaytin nañ ñëw ñu bëre comprendre nga booyee noonu ku ma ci jàpp barki Serigne Touba naa defaral lu ne cuur yamuñu ma fii sen wéy wéylu bu nag dafa fu ñu koy yemale ñun parcelle lañ dëkk comprendre nga. say supporters loo leen di wax. na ñu waajal xam na këli ngi ñëw këli moo ngi ñëw te buy ñëwaat mooy dàq day gën a màgg di gën a am doole di gën a def ñàbb waaw. waaw kër liggéey ngi nii nag na gars jël avancé am nga gars yi lamb ji dafa bëri ay tapet barki Serigne Touba jërëjëf dafa bëri ay ragal ci boppam dëgg ci ñun te mbégte ci ñun Boubacar ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay maa ngi lay fay Xaadim Ndiaye numéro Xaadim Samba numéro 2. Xaadim Samba numéro 2. loolu am yow sama xarit loolu am na gën nañ mais Boubacar la ma ko inspiré moom mu dugg tëgg làmb. waaw mais xam nga yàgg si làmb. depuis 2006 ñu ngi si làmb. bi nekk xale ndaw bi ñu génnee école journalisme yàlla dafa def ñu dem si ay rédaction yu mag ay rédaction sportive yu mag di liggéey rek si làmb defuñu politique. defuñu économie defuñu société defuñu football defuñu dara làmb la ñuy dund chaque jour donc day dem ba day indi amour mais à un moment donné boo ci defee dix ans da ngay bëgg def beneen salante parce que ñun ñun ñun yàgg nañ ci làmb yow xam nga lool fii fii nii combat bu ne dund nañ ko stade bu mag bi Iba Mar bi ba muy tëgg dund nañ fa Demba Diop fu ne donc dañuy soxla beneen salante waaw mais Boubacar combat yi nga seeta ak yi ko di di bindu ban combat lu ci gën a marqué si si sama carrière journaliste carrière journaliste. combat bi ma gën a marqué. mooy combat Balla Gaye Yékini moo ma gën a marqué ci làmb. lu tax lu tax lu que làmb boobu déjà Balla dafa yàgg bëggoon bëre Yékini depuis bi muy nekk mbër bu ndaw. la ne moom tôt ou tard dina am Yékini dina bëre ak Yékini te jour bu bëree Yékini dana daan Yékini donc nga gis ne challenger la xam nga sportif da nga am challenge da am but am objectif. donc carrière am yëpp dafa liggéey ndax loolu moo waxoon ba ñëw daan est-ce que Boubacar pare na pour tëggaat yeneen journée. mais bien sur d'ailleurs Ousmane mi moom mooy coach Sangomar. moom laa doon waxtaan moom incha allah. Euh, ñi ngi xool bu neexee yàlla am na ni muy déjà dañuy dem Mbour le 25 juillet. Mbour stade municipal bu Mbour. tëgg fa booy booy Mbour. ah Aada Fedior. buñ jógee foofu incha allah août dañuy ñëw fii bu neexee yàlla 19 août daal di clôturer. daal di saison déwén nga fa yéene duggaat bi biir. est-ce que pare nga pour dugg ay tournoi bëri simple. waaw waaw incha allah man ma dinaa waxtaan ak sama mbokk séeréer yi. Euh, côté boobu il ñu liggéey si bu neexee yàlla. ndeysaan pare baa ngi loolu. ànd ak délégation am. ama fa jaar Boubacar Niang le grand promoteur le grand journaliste. ndeysaan grand combat bi dox si diggante ki waree écurie olympique de Ngor waaye di daje xale bi nga xamante ne nii moom moo di Boy Diop numéro 2 waree écurie sàkk xam-xam bu Père Birahim Ndiaye ñaari ancien gloire ñaari champion ñaari ndaanaan ku xam Père Birahim ndeysaan xam ki nga xam ne moom mooy per Ibou joob xam ne ñoom ñaar ay ndaanaan ay champion lan présentation pare bi nga seet loolu mu yëkkat loxo ndeysaan Boy Diop xeeru Ngor. Kaaru Ngoon ngeen gis na mu yëkkati loxoom Boy Diop a ngi noonu yëkkati na loxoom Kaaru Ngoon nga ne Boy Diop moo waaw jërëjëf suñu mbokk amateur ñi fi stade bi Iba Mar Diop Xeeru ak Boy Diop drapeau Papis Diba muy bindkat bu mag di bind ci histoire Sénégal waaye di bind ci li nga xamante ni moo di histoire làmb liggéey rek a wër bañ tuddee ko drapeau waaw Xeeru Ngor Boy waaw arbitre baa ngi wax ñoom Xeeri ak Boy Diop li làmb nangu ak li làmb nanguwul Xeeri Ngor moo ngemboo ngembul am lu Boy Diop moo ngemboo ngembul lu ñuul li ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb nanguwul waaw arbitre baa ngi wax ñoom waaw entraîneur yi pare Boy Diop Boy Diop ak Xeeru Ngor ñoom ñaar arbitre baa ngi wax ak ñoom waaw arbitre soufflé na Boy Diop ak Xeeru Ngor ñoom ñaar Xeeru Ngor moo am moo sabu yeex ci bopp bi Boy Diop moom gépp lu ñuuli ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ñoom ñaar ñi ngi léewtoo léewtoo bu dib Boy Diop ak Xeeru Ngor waaw ñu ngi fi nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop Xeeru Ngor ak Boy Diop waaw Boy Diop ak Xeeru Ngor waaw Xeeru Ngor ak Boy Diop Boy Diop ak Xeeru Ngor ar ñu bëre waaw Boy Diop ak Xeeru ñoom ñaar Boy Diop ak ñoom ñaar ñu ngi lay toog kurpañ demagul Boy Diop ak Xeeru Ngor Boy Diop ak Xeeru Ngor attention Boy Diop daw na jël Xeeru Ngor attention door mu daanu waaw Xeeru Ngor doon na ko ay dal waaw daw nañ xeex ñoom ñaar léegi Boy Diop Xeeru Ngor daw nañ xeex ñoom ñaar waaw attention waaw Xeeru Ngor ak Boy Diop Boy Diop ak Xeeru Ngor Boy Diop ak Xeeru Ngor Boy Diop Ngor Boy Diop ak Xeeru Ngor attention Boy Diop daw na jël Xeeru Ngor Boy Diop jël na Xeeru Ngor attention waaw li sorte waaw Boy Diop ak Xeeru Ngor avertissement Xeeru Ngor waaw arbitre soufflé na Boy ak Xeeru Ngor arbitre soufflé na avertissement Xeeru Ngor attention daw nañ xeex ñoom ñaar léegi waaw Xeeru Ngor ak Boy Diop waaw attention Xeeru Ngor jël na Boy Diop xeeru ngor booy ah ilaa ilaa booy Diop doon na daan na ko jël bon benn warante laa ilaa ilaa nak nga bëri avant tout. maa ngi sant ñi. ana Youssou Ndiaye. Youssou Ndiaye. Youssou Ndiaye. waaye ñoom déglu ma rek. sama mafia bi laa bu doon ñii du métti di gërëm Youssou Ndiaye gisal gars yi xoolal ay bool ay bool ay njaare gars dañ tàgg seen yi dëj barke alxuraanu karim ku nekk demam seen dëkk oh. dama xam ne maa ko dàq bëre barki alxuraan kon kii mënu maa sax yëngal xam nga laa war a bëral ñi may wax ñoom moo tax ñi bëre bëral laa war a bëral ñooy samay morom ñaata combat booy Diop barki alxuraan ah ñaata combat nga bëre maa ngi sama victoire ah, waaw waaw tey laajal ku la ah, di ñaan nag di ñaan di ay ñoom agogo ay ñoom ay ñoom Agogo ay ñoom deux ziga ndongolo barki Seydina Mouhamed ay ndaanaan lañ mais yeneen yàlla yàlla leen yàlla defal lu kawe seen di gërëm waa Saxam xam yëpp di gërëm Birame Ndiaye bu baax di ko ñaanal di gërëm Zé famille général di ko gërëm waa say supporter loo leen dénk da leen wax ñu ñëw jàppale ñu rek ñu waa Parcelles xam nga nañu jàppale barke man Baye Fall la sama xol dara nekku si ñëpp yàlla leen yàlla may jàmm ah Mafia A22 waa zéro maa ngi leen di gërëm baax A25 fi ma jëm gars yi dañ ma jël samay morom Bébé Diouldé Bébé Diouldé na ñëw ñu bëre ak moom Bébé Diouldé kan jërëjëf